ci bile salle fees dell ànd ak xumbaay ak mbumbaay la ñii di jigéenu coalition benn bokk yaakaar daal di woo njiitu réew mi di président Macky Sall mu nekk seen candidat ci atum 2024 mu nekk ab candidature bi nga xamante ne ñoom sax dañoo jàpp ni que bi ci boppam moo ko validé. kon conseil constitutionnel bien que président nee na ñaari mandat laay def ñaari mandat yi bañu ko waaye sept ans yi bokk kon si juróomi at yi lay commencé ñaareeli mandat kon nag looloo tax ñun ñu ne kon d'accord nañ ci mu nekk suñu candidat. yile jigéen di rafetlu waxtaan mi nga xamante ne njiitu réew mi woote na ko ñoom nag di woo rek ku jéggi mu wuyu ji si bile dialogue. jigéenu Benno et de la grande majorité présidentielle ñu ngi wax opposition surtout ku jéggi ñu dem wuyu ji monsieur le président de la république bu ñëpp demee ñu toog waxtaan. jàmm dana am ci dëkk bi prospérité dina am et cetera dialogue boo xam ne nag ci dëgg lañ koy teg ku nekk wax li nekk ci sa xol. leneen lu ñuy rafetlu itam di promotion jigéen si njiiteelu armée sénégalaise. mu daal di nommé général mu élevé au grade de général madame Fatou Fall une première c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal nga dégg général bu jigéen mësoon ngeen ko dégg avant guleet donc ñu koy jaajëfal. ngir rek mën a jàppale bi li candidature njiitu réewum Sénégal président Macky Sall ci atum 2024 Ndeye Marème Badiane ak ay àndandoowam dañoo fas yéene amal ab caravane de sensibilisation si biir réew mi.